radiyallahu an cheikhina ahmad atiyaani wa an saairi muqaddami wa xulafaai ridan yaummu aljamic wa radiyallahu an cheikhina alhaj malik wa an saairi muqaddami wa abnaai wa xulafaai wa abnaai abnaihi ridwanullah alayhim ajmacin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu wutuñ julliñ ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ngërëm ñi topp ci gannaawam ba bés penc ci ñaanal suñu wasila ci yàlla Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ak mbooleem ay xulafa om um. ñaanal ngërëm suñu wasila mam Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu ñu ngi nekk ci téere bi ñuy wax riyu zamaan euh, fi mawlidi xayri bani adnan mu doon téere boo xam ne sëriñ bi moo ci doon jàngale yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam ci tënk mu doon téere gàmmu ñu àggoon ci baat bi sabaikuhu jawaahiru muzriyatun walimla wa huwa aynu luyuuni lahu qabla alwilaadati mucjizatun taraaha ummuhu duna aldunuuni naqiyun fi wilaadatihi cujaabun yucayi kulla di caqlin baniini wa makxuulan wa masruuran nadiifan ataa yowma alwilaadati fi cuyuuni yusabixu rabbahu tasbixa abdin barurin zinkisaarin mustakiini wa baytullahi fiya du tiraabin faya lallahi min shahmin makiini wa maala albaytu bil arkaani xatta yukabbira saajidan mithla albatini mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla amalee nag leeram sallallahu alayhi wa sallam wéetoog moom ay miliyaari miliyaari at ci atam yi moom yàlla subhaanahu wa taala yonent bi di ko wéetal di ko sàbbal ba mu sob ko mu bëgg amal jëmmam mu bind suñ maam aadama def ci moom leeru yonent bi sallallahu alayhi dugal ko àjjana wàccaat ko mu ñëw ci kaw suuf mu pour peuplel ko suuf muy dem ba agsi ci maamam bu ñuy wax Ilias ñu dégg ko muy sàbbaal sëriñ bi mu ngi ñëw ci juddoom nee na maam yi koo ci jël rek di nga gis ne seggitu wurus la wurus bu ñu filtre filtré waat ko ba mu doon or pur nga xam ne jamaa bu ñu jël tey ji moom xeeb na maam boo maam boo ko jëlal moo xam bu góor la wala bu jigéen xepp na ko moom yonent bi leer googu nag di ñëw ba ñëw ci euh, cheybat alhamdi ñëw ci abdullah am teg ay xew-xew yoo xam ne nii biñ ko ëmbee ba mu amina suñu maam ëmb ko tabaarakallahu la sëriñ bi dale tey mu ne lahu ñeel na yonent bi mucjizaatun ay kéemaan yoo xam ne nii kenn mënu koo def qablal wilaadati avant muy juddu biñ ko ëmbee rek gis nañ commencé nañoo gis ay jeexital taraaha gis na kéemaan yooyu ummuhu yaayam di amina duuna zununi foogu ko de njortu ko lu leer nañ la doon gis du ay kéemaan yoo xam ne dañ naan ci baatin la xew wala soxna si da ko sentir déedéet moom da koy gis bi mu ëmbee yonent ba mu toll ci mat dafa gis ay kéemaan bokk na ci yonent bi bi mu juddoo wér na ne fi nit di jaar di juddu juddoowu fa moom jumbux ci la génnee taxaw nii mais bi mu tëddee naqiyun dafa set wicc wicc fii wilaadatihi ci juddoom loolu ujaabun kéemaan la ndax ku ne xam ne liir bu juddoo li ñu njëkk a def mooy sàng ko dagg tabaarakallahu euh, butit gi nga xam ne moo ko topp yeneen bi nag dafa judd rek dem tegu fële dara topp ko naqiyun aji set la fii wilaadati ci juddoom ujaabun kéemaan da cee ne kiimaan goo xam ne yu ay yi dafay lottal kulla zi leen képp ku am xel ba nii nii xel mu mën a xalaat te ñaw loo ñaw ñaw xalaat boo ñëwee dangay ngay jommi loolay jommal mu ne wa mag xoolan da ngay gis ne noo seulement sanga nañ ko ba mu set waaye wa mag xoolan dañ koo tusngal te ab liir bu den même crayon sax buñ ko koy defal yaay ji xanaa moo koy defal mais yonent bi moom dañ koo bu doon tey dañ koo crayon tusngal ko ba bët yi ñuul kuk wa masruuran dañ ko luttal mooy butit gi nga xam ne moom mooy boole liye yaay ji ak doom ji moom yonent bi mu juddoo dañ ko dagg ba jumbux bi wér mu tegu na le ba pare nazifan ñu sang ka ba mu set wicc solal ko ay yére euh, tabaarakallaahu teg ko na le lii de ata dikk na ci xabar ne yowmal wilaadati fi uyuuni bés bi nga xam ne tabaarakallahu ci la yonent bi juddu kiimaan yii daal ñëw na ci téere yi ak ci xabar mu leer ne daal lii moom am na euh, yonent bi nag bi mu juddoo ñu luttal ko noonu dugal ko néegu góor ba pare euh, tusngal ko nga xam ne keneen amul loo ciy def lu sol ko yére amul leneen loo ciy def dañu gis mu jël loxo bu loxo bi tàllal ko baaraam maanaam baaraam bi daf koo tàllal mel ni koy taaya taaya banque ñeenti baaraam yi tàllal benn sànn benn sànnikaay bi di xool asamaan ci bët yu rëy yi te rafet lool te weex tal ñu dégg ko muy wax yu sabbixu mu ngi sàbbaal rabbahu boroomam tasbiixa abdin comme sàbbaalu jàmm boo xam ne baruurin ku baax la ki saarin di toroxlu musakiinin di miskiinu maanaam di dal ci kanamu boroomam di nitu yàlla bi di toogee ci xalwaam damma yaram bi yëpp damma darajaam yëpp toog di sàbbal boroomam gëmm bay jooy noonu mu sellee noonu muy sellalee yonent bi mu ganee àdduna lim njëkk a def mooy tàllal baaraam xool asamaan euh, di naan allahu akbar walla alhamdu wala rabbin rafiin Euh, loolu kéemaan gu rëy la kéemaan googu yamul yamul ci yem yemu fa gis nga wa baytullahi kaaba gi ci boppam fii haa wax nañ ne ci guddi gi zutiraabin dafa commencé doon yëngu te ku ne xam na ne bâtiment yëngu baaxul ci moom waaye kaaba gi da doon yëngu bil arkaani ànd ak tabaarakallahu sax ay ponkam maanaam ñeenti koñ yëpp fa yàllallahi maa yéem yàlla min cheh min ci cër boo xam ne nii sang boo xam ne ma kii nii ku foor la ku am daraja la ca yàlla sang bu am daraja ci yàlla moo judd ci guddi googu tax na lii xew fa wa maa la jeng na sax albaytu ni eh, kaaba googu bil arkaani ànd ak ñeenti koñam yépp xataa yu kabbira ànd ak di kabbar maanaam xataa xarra saajidan xarrat saajidan ba mu mujj sujjóot moom kaaba gi yu yu kabbiru di kàbbaraale allahu akbar nii nga gisee nit toog di taay ba yàgg rot ci suuf ne allahu akbar walla ku taxaw di jàng ba yàgg rukkoo siggiwaat rot ci suuf ne allahu akbar kaaba gi li muy nekk nekk tabax loolu def na ko nan la ko defee nag loolu moom mbiru euh, baatin la yàlla ko xam mithlal fatini kaaba gi dafa mel ni nit ku am xel ni muy sujootee kaaba gi noonu la sujootee te tojul loolu taadiman li milaadihi sallallahu alayhi wa moom kaaba gi nag ku mu màggal juddoom ba àgg fii yow mii nit taxaw nga deene doo màggal juddu kooku dëgg-dëgg jar ngaa ñaanal bokk na ci li xew ci guddi gi sayid xaj malik nee na daa ruhbaanu an jaana mubiinun tataabaat ilhawaatifu lithaxiini biha xalla alkawaakibu mushriqaatun كما حل الملائك للحسين ولليوان والشرف والشرفات أمر شهير والمذلة للقطين بها نيران فرس هامدات وما للبحر من ماء معين بها أن اللعين بها رجوم ترمت للشياطين الشطون سل الأصنام هل نكست برغم ذو الأوثان في دين ودين لما في جوفها إنشاء شعر يطرب كل ذي عقل ودين مجاوب سائل الأصنام ماذا يميلكم ودمتم في الركون ومفتقر بمفتقر ينادي يضاعف ضعفه في كل حين sëriñ bi ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee àdduna dafa am ay xew-xew yu ci amaat ba tey daa woona ar <clears throat> ruhbaanu labbe yépp labbe yépp tabaarakallahu bi yonent bi juddoo dañoo wootante wootante bu doon tey jii dañoo wootante ay téléphone waaye jamono yooyu déplacement la kenn ku nekk làbbe bu nekk dayru ba nga nekkoon làbbe bu nekk église ba nga nekkoon danga daw ci guddi gi ndax gis nañ ci ay kéemaan ak lumière booleek lañu jotoon a jàng ne guddik tey dana am lu xew ñu daw wootante vingt avril la woon 570 ñu daw wootante ñu ñëw ñu ne waaw yéen li xew lan la li xew lan la kenn ku ne ne morom ma man dama foogoon ne man rek maa ko yëg kenn ku ne ne morom ma man a ah, kon yow yëg nga li xew ñoom ñoo wootante ne an li fi ne jaa ana dikkal nañu mu bii nun lu wér ñun prophète biñ doon xaar foogoon ne ci nasaraani la bokk wala ñu foog ne ci judaisme lay bokk ñun kooku juddu na guddi tey gii ñoom ñëpp ñu d'accord ne guddi googu kooku ñu doon xaar juddu na te ñoom juruñu ko bokkul ci ñoom Makka la juddoo bokk na ci li xew ci guddi gi te taabaati toftaloo na xawaatifu aatif yi li saxiini ci tabaarakallahu ñi ñi xelu tey déglu euh, képp koo xam ne nit euh, ci fatt ndax as saxiin mooy shay'un mughallad mooy loo xam ne dafa fatt lool bu doon tey dañuy wax ne rajo yi foor na foor goo xam ne haatif yi ñu ngi yuuxu rek di wax ah waa ji juddu na de waa ji juddu na gis nga ni guddi gàmmu woon di mel nga xam ne boo jege woon sa xarit loo ko jege-jege bëgg ko wax soxlo doo doo leen déggante ndax rajo yu foor guddi juddu yonent bi noonu la masa mel biha nekk na fa ca guddi gi xalal kawaakibu biddiw yi dafa mel ni dañoo gën a wàcc mushriqaatun leer nañ biddiw boo ci gis day leere ni làmp boole gën gën a wàcc bokk na ci la xew keroog ca guddi ga kama malaa'iku lil xasini malaaka yëpp yàlla da leen jox ndigal ñu wàcc ci guddi googu mel ni tabaarakallahu benn équipe benn équipe bu gañe noonu ñuy défilé woo di cëppi cëppi noonu la malaaka yi kaar tabaarakallahu doon défilé woo ngir ki war a e, defar àdduna ak alaaxira juddul am na lu xew ci guddi gi ba tey walil iwaanu wa shurufaatu amrun pale yi nga xam ne nii ñoo nekkoon pale yu grande ville yi lu mel ni tabaarakallaahu faris lu mel ni Cham seen pale yu rëy yooyu ñoom ku ne xam ne tubaab yi ni ñuy liggéeyee benn pale bu ne lafay nekk ci ay pieds kenn xamul nu mu toll liñ ci jublu mooy résistance su tabax bi ak war a guñ gum fa war a am ay siècle et des siècles tey boo demoon ba tey Europe Grèce boo fa demoon tey di fa fekk pieds yoo xam ne époque yooyu lañ ko tabaxoon donte tabax ba daanu na waaye pieds ñu nga fa ba tey waaye li ñuy dëgër dëgër alaaj Malik nee na walil iwaanu euh, pays yi muy pale yi wa surufaatu ak pieds yi amrun am na fa mbir moo xam ne ni shahirun mu siiw la mooy yépp a daanoondoo wal mazallatu toroxte nag lil xatini ñel na ñi ca dëkkoon axa kay parce que pale bu daanoo ña fa fanaan moom ñooñu xam nga ne ñooñu dee yàgg na bihaa ci guddi ga am na leneen lu xew niiraanu fursin safaray faris hamidaatun ay xamidaatun dafa fay guddi gi jun yonent bi juddoo dafa amoon safara suñ daan jaamu téere yi nee nañ tàkk na junni at waaye yonent bi guddi gi mu euh, juddoo waaye ji doon xam ba fa la toog dafa jekki-jekki rek mel ni dafa taw dafa taw kaar ba mu tooy xepp ci kawam mu ne kamaj fay ñoom ñu jaaxle xamuñu lu ko fay bokk na ci benn ndox moo xam ne kaar dañ ko doon jaamu ndox mi dafa jekki-jekki rek muy maa u saawata dafa jekki-jekki mel ne lu ngeer moo tax mu ne wa maalil baxri la géej ga min maa in ma ini wa maalil baxri ñeelul géej ga boog min maa in ci ndox ma ini boo xam ne day day day day amatul ndox muy ball ci saa si dafa mel ni rek marmet boo tegoon ci gaz muy wañax ba jeex tàkk waaw ndox moo xam ne daw na junni at safara su tàkk junni at la ka fay ci génn guddi loolu rëy na te kenn xamul sabab bi ñoom boog xamuñu ko biha bokk na ci la xew ci guddi gi nee nañu anna laina kii ñu rëbb muy seytaane biha dal na ko rujumun ay jumi safara iblis kaar guddi gi yonent bi juddoo dafa gis leer gi gis xéewal yi haatif yëpp di yuuxu mu ne am na lu xew soboon nag doon dem côté asamaan pour dégg information bi xew ñu ay jum ñoo ko fa topp jumi safara njabootam yu bari da leen lakk ñu dee ci guddi googu mu yëg na ndekete ki mu bañoon ne du fi juddu juddu na keroog wa anna lan na wa anna ran na lainul xabu yaxduruhu junuduhu e, moo tax jum yooyu jumu biddiw yooyu ak shihaab yi taramat sànni nañ ko li shayatini sutuni ci seetaane mu bon mi mu lakk njabootam yu bari ndax tabaarakallaahu ki war a defar àdduna bi mu bëgg yàq mu moo juddu guddi googu loolu rek xew ji am na leneen lu xew sali laajal rek asnaama xërëm yi hal nu kisat ndax ñettuñu leen bi raxmin ci toroxte xërëm yoo xam ne dañ leen teg ëpp nañu quarante mètres ci hauteur ñu teg leen di leen jaamu am na fa yoo xam ne am nañ fa lu ëpp téeméeri at nit ñi di leen jaamu di leen toroxlul dañoo jekki-jekki mel ni da nga leen mbécc rek ñu daanu ci suuf te kenn xamul lu ko daaneel ndax xërëm boo xam ne ñu ngi ko defaree ci bronze mbaa métal kooku bu même ñaka defaroon sax bu ñu bëggoon ñëw ba max mu daanu du mën a daanu kon ñooñu bu ñu xëyee fekk mu daanu ci suuf war nañoo laaj ku ko daaneel zawul awsaani ñi amee woon xërëm fii diini ñu ngi ci toroxte wa diini ak euh, euh, xeebu zillati euh, wa wal xaqaara waaw lan moo tax ñi nekkoon ñi amoon ay xërëm muy ñi nga xam ne xërëm bu ne dafa amaan ku kilifa gu koy amee nga xam ne ku ñëw moom moo lay recevoir jël sa xaalis jël léeg laa ñooñu dañoo toroxa torox tiita tiita tiit léegi ñoom ñoom ñooñu ñoom ñooy def listixaar bu doon tey jii dañuy def listixaar di laaj xërëm bi lu la dal léegi am son bu koy bu koy tontu li maa fi jëw fi am luy nekk ci biir muy jinne yi nga xam ñooy nekk ci biir xërëm bi incha u shi'rin di way ay ay ay way nankaan ñun jaratul ngeen ñuy jaamu suñu suñu suñu nguur jeex na parce que ki war a xettali àdduna juddu na loolu ku jàng siira di nga ci gis tabaarakallahu am na ci saxaaba yoo xam fa lañ jaari ñoom ñëw tuub sax ndax juddi gi yonent bi juddoo dégg nañ xërëm yi wax loolu kuñ ku kuy seet booy seet ki nga ki la ki la daan informé dana amatuma lu ma la wax ci information ndax dañ ñoo tere asamaan si ndax ki war a xettali àdduna juddu na bu ko defee xërëm yooyu lii ne ci biiram ñooy woy yu tarribu di bégloo di feccaloo kulli di diinin képp ku war a ami ji xel wa diine ak diine koo xam ne nii diine nga doon xaar ak njub way yooyu xërëm yi di way ci biiram dana la bégloo ba nga war a jug fecc ah, bu ko defee waa ji ne yow xërëm bi yow loola dal moo tax mu ne mu jaawi ba saa ilil asnaama bu ko defee waa jooju nga xam ne moo yore woon xërëm gi dafay laaj yow loola dal mu jaawi bi mu jaawi ba saayil asnaama kii kii tontu nag ki doon laaj xërëm yi gi wax ne maza yu mu lu leen daaneel wa dumtum ngeen nekk rek fi rukkuun yi ci jóoru nii yéen lu leen taxa a jóoru yéen xërëm yu toll nii yéen nit ñi di leen wax seeni soxla yaakaar leen ngeen jóoru nii booleeg di way way yii bu ko defee ñoom ñu wax ne yéen seen nguur jeex na ndax fa mu muftaqirun koo xam ne dafay aajowoo day am soxlo soxla yu dul faju ba pare yu naat yi muy woo bi muftaqirin ci koo xam ne day am soxla ni moom yu dul faju yu daa afu day gën a yokk doo foofu doya dem fi kulli xiini jamono ju ne nit koo xam ne tabaarakallahu mu ngi am soxla juróomi junni bu mu mënta faj yow nga ñàkk looy def ñëw ci moom di ko wax soxla téeméeri junni ragal naa ne sa soxla dina gën a yéex a faju ji moom la Seydi xaj maa di wax képp koo xam ne dafa bëgg a wax ne yaa ngi jaamu ku dul yàlla wala ngay yaakaar ku dul yàlla wala nga def sa yaakaar ci ku dul yàlla yaa ngi bëgg a tardeel sa bopp ni kooku mel yàlla ñu ci yàlla musal guddi juddu yonent bi dafa am yeneen xew-xew yu ci am sëriñ bi nee na wa naziati dafa xëccoo tuyuuru biddi maanaam picc yi picc yi picc yi dañoo xëccoo kaza naka noonu wuxuusun ak ndegment yi ndegment boo ko gisee mooy bépp rab boo xam ne dafa am ay sell nga xam ne day lekk nit wala muy lekk yàpp ñoom ñoo werante ci àll bi li xannaanin ngir bëgg liggéey maanaam li xannaanin ngir ngir ngir cofeel yakunu goo xam nii dina ci nekk ridal qatini ngërëmal ki ñuy liggéeyal maanaam arab àll yi ñoo taxaw ne yonent yàlla muhammad juddu na tey mooy sangu àdduna ak alaxira moo tax ñu bind comme ñun amee nañu personnalité boo xam kenn yabuñu comme gaynde comme segg ñun ñooy daj ñooy jël xale bi yar ko ñun ñooy yar liir bi ba nga xam ne kenn du ko jege picc yi ne leen déedéet ñoo ci gën a yey mën nañ ko teg suñu tàgg yar ko ñu nekk di werante waaye yàlla nag yónni yónnee ci ñoom ndaw ne leen muñ leen nag ndax wax dëgg yàlla comme waa ji du nit bàyyi leen ay mbokki nitam yar ko ñu ne waaw léegi nit ñi itam kan moo ko ci yar ndax war na dund ci environnement bu posi paisible boo xam ne nii coow du fa am xërëm du fa jib moo tax yàlla nag àtte verdict bi la joxe mu ne lisaanul qadri làmmeñu dëgg làmmeñu dogalu yàlla muy làmmeñu destin xad naa daa moo woote ji xaaran ci lu fés ne e noppalu leen yéen gaynde yi yéen segg yi yéen rab yi yéen njanaaw yi yéen picc yi noppalu leen ci ki ngeen bëgg yar xam naa seen yéene waaye man sama dogal moo dogal li ne bi yar googu wala bihi yonent bi uxtusat jagleel nañ ko xalimatu saadiya bi duuni ci lu dul keneen yàlla moo dogal loolu ngir ay jikko yu mu nawoon ci xalimatu saadiya yàlla dogal ci destin am ne moo koy yar waaye yóbbu ko ci àll bi pour ndax moom ay kéemaan rek la pour kenn bañ koo fekk yonent yàlla muhammad moomu kon kenn du moom moom it du kenn bi xamoo ne ci barkeem taabal ilaahu la yàlla baale ala abina ci suñu baay maam aadama bii bi mu duggee àjjana kaar ba def fa lam fa def ba yàlla ni ko génneel ci barke yonent bi sallallahu alayhi lañ ko baale xamoo ne bii ci barkeem zunnuuni borom bi euh, boroom jën wa muy seydina yunus zaaya la ci la jógee bat na nuuni ci biir jën bi ndax ba mu bàyyee waa nii na waa dem doon rëcc euh, euh, dugg ci gaal gaal gi tabaarakallahu commencé yëngu capitaine bi ne gaal de bu masaana yëngu te euh, ngelawul am na lu xew jàmm buy daw sàngam daf fee nekk ñu bantale bant ba dal ci yunus ñu ne ko kenn dee moo gën mbooloo mu dee wàcc ko dugal ko nag ci ndox mi moo tax bi mu fa toogee ab diir ba yàgg ci leeru yonent yàlla muhammad mu wax baat bu rëy bii mu ne laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min az Eh, te loolu leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxloo jën bi nag àttanatu ko ci la ko dem gëx nag ca tefes ga yàlla saxal fa garabu naajo mu muur ko ba yaram bi wow koŋ nde bu ko deful woon yënt eh, yënt yi dinañ ko lekk ndax yaram wu nooy ba mu fendee nag mu jug taxaw delluwaat dem dox ji soxlaam doxi ji waat mission kon zaaya la bat na nuuni moom Yunus mu ngi amee lool ci barke yonent bi bihi xamoo ne ci barke yonent bi bishrun ci la mbégte amee bi maanaam mbégte bi li Isa ci yonte yàlla Isa wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu Ahmad yonte yàlla Isa ka mu doon bégale àdduna bi mooy yonent bi kon bi mu juddoo war ngaa xam ne sa mbégte la koo xam ne biñ lay informer mbégteem boobu juddoogul boo juddoo kaar ba fekke dundam wala nga judd ci gannaawam fekke diineem war ngaa bég wa ixyaa un dundal gi mu doon dundal itam le insa ci insa insa fekk na ku dee ba am lu ëpp téeméeri at mu ne la xum bi iznillah jugal ci ndigalu yàlla waaye ci barke yonent bi la amee loolu néew ba jugal euh, mu laaj ko ay laaj mu pare nekk deewaatal ci ndigalu yàlla mu deewaat loolu bu mu la yéem ci barke yonent bi la xewe sëy xañ maa ci barke yonent bi ak juddoom gu tedd googu xaalal ali ci la yàlla wax yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim keroog maam ibrahima buñ ko dugalee ci safara si euh, yàlla na yaa naaru kuuni bardan wa salaaman yow safara si nanga sedd ci ibrahima bu laajte ci barke yonent bi la xewe bii ci barkeem moom yonent bi ak juddoom gu tedd gi yaqubu yonent yàlla yaquba di bàyyi yuusuf murtaddan mujj naa delluwaat basiran di gis te ku ne xam na ne toog na di jooy doomam jooju yuusuf ngir ñàkk gi mu ko ñàkk lu mat tabarakallahu téere yi ne am na ñu ne euh, ñàkk na ay bëtam ay ati ati at waaye ci barke yonent bi ba mu jotee ci doom mu yónnee ko mbuuma dañ ko ko jox rek mu laal ko bët yi gisaat bii ci barke yonent bi ak leeram luutun yonte yàlla luut yu najjaa ci lañ ko musalee min quruni ci génération bi ko naroona rey nga xam ne ataatuuna alfaxishata ma sabaqukum biha min ahadin min alaalamin la leen waxoon góor jigéen ñi nga xam ne dañ naroon a rey yonte yàlla lut ci barke yonente bi lañ ko musalee ba ñaari malaaka jibril lag mikaayil ñëw yori jëmi nit ñoom ñu bëgg ko song ay nitam yonte yàlla lut jaaxle malaaka yi bul jaaxle inna rusulu rabbika ñun say émissaire borom lañ say ndawi borom lañ lan na ilay naa duñ agsi ci ñun ba ñu naree jege ci jibril da leen mbéj ñoom ñëpp kenn gisatul seen kanam yi maase ca fajar ga lañ leen alak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musal nu luut ak waa këram loolu soxnaam bihi haza zabixu fida a zabxin bihi dul jubbiyan juumin sutuuni sayid xaj maayeg ne bihi ci barke yonent bi haza ci la ame ci la làqee a zabixu ki ñu waroon a rey muy sayduna ismaila fidaa azibhin njotug rey gi muy eh, eh, eh, tabaarakallahu xar mu rëy mi ñu jële àjjana ñëw remplacer ko ki tëddoon pour ñu rey ko loolu mu ngi amee ci barke yonent bi nan la amee parce que yonent bi leeram moo nekkoon ci Ismaila bu ñu ko reyoon rek du mën a continuer ti kon ci barkeem la ñu jot waaye du Ismaila lañ jot mais moom ci boppam lañ jot bihi ci barke yonent wi zul jubbi ki nekkoon ci teen ba mu yonent yàlla yusuf yan ju mu ngi mucc min sutuuni ci xuutaayu teen boobu euh, teen bañ ko dugaloon ay bokkam bëggoon ko fa sàkkal pexe yàlla ngi ko musal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xuutaayu teen boobu ñu indil ko fa matlaa bu mu nekk ab diir yàlla yebal tabaarakallahu ay sàmmkat yu ñëw doon wut ndox wala ay commerçant sànni seen baag yonte yàlla yuusuf téye ci yàlla woyofal jëmmam ndax bu diisoon dañuy tiit waaye mu woyofal jëmmam ba mu amee poids wu ku tànqa ndox rekk ñaari litre ba ñetti litre woyofal poids am ñu koy xëcca ndànk muy génne ba agsi ci ñoom ñu xool muy xale bu rafet lool yàlla roof ci ñoom bëgg mbëggeel ndax mënoon nañ koo ragal ñu jël ko tabaarakallahu yóbbu ko musal ko ci teen boobu te dee moo ko fa waroon a fekk loolu mu ngi amee ci barke yonent bi si Haj Maalik na bii ci barke yonent bi zul mulki bu zul fulki borom gaal gi muy yont yàlla noox riidal maa u ndox mi mu ngi niise ñiisee anhu ci moom wala boog yokkoo ci moom ku ne xam na ne désert nga defar fa gaal kooku wax dëgg yàlla taw taw bu mën a yóbbu euh, euh, gaal googu ab taw kese munta am léegi nag ndox mi yàlla yokk lii jaare ci suuf lii jaare ci kaw amewul ci barke kenn lu dul ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa ba aw nitam lab moom mu mu mucc ànd ak gaal googu ba wara a e, kosse e, mu dem ci montagne bu muy wax juudi yàlla ci mbaaxam mu ngiisalaat ndox mi ndox mi ngiisaat ci barke yonent yàlla muhammad ba mu mën a wàccaat ci gaal gi ndax bu ngiisul woon du amaat fu mu dëkk suuf su wow yàlla woowalaat suuf si moom yonent yàlla noox mu wàcc dëkkaat ba moom moo peuplé waat àdduna nii bihi ci barkeem moom yonent bi Moussa yonent yàlla Moussa yu najjaa ci lañ ko musal min suxuuni ci maanaam tabaarakallaahu labuk waaw waa firawna yonent yàlla Moussa dafa dem firawna topp ak mbooloom bëgg ko eh, éradiquer benn yoon mu ñëw ba ci géej gi mënatula avancer yàlla na ko jëlal sayet nga dóor ko ci barke yonent bi mu julli ci yonent bi mu dóor ko ci géej gi tas euh, maanaam def fukki yoon ak ñaar ñoom ñëpp ñu sóobu ci ba jàll na bëggoon leen topp yàlla bàyyi ko mu dugg ci digg gi géej gi yàlla rey leen fa bi yidul mulki ci barke yonent bi boroom nguur gi mulika ci la yilifee maata mën naa la mu bëggoon yonte yàlla Suleymaan la moo ne woon rabbi euh, habli mulkan laa yambaxi li ahadin min baadi innaka antal wahhab yàlla may ma nguur goo xam ne ni jaadootul kenn di ko am ci sama gannaaw te mooy ni ma yilifee nit ñi naa yilif noonu seetaane yi yilife noonu jinne yi yilife noonu rab yi ak picc yi loolu nag nguur gu toll noonu ku ko amaat itam na nga ko wax ndax man ngaa yilif àdduna bi sax boo baaxee ba baax waaye yilif rab yeeg jinne yeeg picc yeeg ñëpp nag loolu Suleymaan moo moom la ko yàlla may moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na jàpp benn jinne takk ko ci jàkk ji waaye mu ne ba ma fàttalikoo li sama mbokk mi ñaanoon Suleymaan te dafa ne woon bëggatul keneen am ko ci gannaawam loolu laa doon bañ moo tax ma bàyyi jinne ji mu dem nga xam ne yonent bi kenn ëpp ko yar moom sallallahu alayhi wa waaye loolu yëpp moom Souleymane mu ngi amee ci barke bii ci barkeem ndax boo bëggee toog di lim yonent yi day mel ni yonent yi rek seddu ci moom maa ngi lay bëgg a nettali man alaaj maa ne ku yàlla bind la nga am yaa ngi ko amee ci barke yonent bi mu ne bii ci moom nil naa lañu ñu amee ay kullama nil naa lépp lu ñu am fa nashkuru kon moo tax ñu ngi sant yàlla kulla diini jamono ju ne ci bépp xéewal bu ñu may rek ñu ngi ko koy sante da yi na nga bàyyi it naa ba xaabaabal gi toog naan diw mu ngi ame lii ci yonent bi diw mu ngi amee lii ci yonent bi xul nel daal ci gàttal kulul baraaya mbindeef yëpp bara lu dul yàlla mu lu dul yàlla rek génn ci lu dul yàlla ku dul yàlla uniiloo ñu ngi ñu ngi ñu ngi ame maa uniiloo lañu ñu amee bil mu biin yi ci ku biir kii di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi li ñu am yëpp ñu ngi ko amee ci barke yonent bi lu tax mu ne is ndax al ijaadu xamoo ne création bi yëpp wal imdaadu ak xéewal yëpp minhu mu ngi jógee ci yonent bi ku yàlla bind bu làcc ci barke yonent bi nga lañ la bind ku yàlla jox teranga ba ci doomu bang doomu màng bi nga lekk léegi yaa ngi ko amee ci barke yonent bi nabiyun yonente la boo xam ne bisnatun sang la aynul uyuni moom mooy sangu Euh, sang yëpp fa tabaarakallahu sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> kii xam nga ne ku muy sa yonant war ngaa sant yàlla teraangay àdduna ak alaxira yëpp moom la ko yàlla sédd li lay kenn du moom moom du kenn mooy raqaa fawqa alburaaqi ila samaai wa daana lahu almalaa'iku ay yadiini wa fi lisraai qaalu gayra hazrin la ra almawla fa qattafa diini علينا الحمد حمدا قر حينا شفى عنا المقفي كل ديني فنحمده ونشكره دواما كذي الإمحال من له بديني نبي كان قبل الكون نورا فجان قبل وحي كل ديني أتى والكفر في جور وظلم فقاد الكل عن دين لديني وسيلتنا نفى في الدين دينا تبين رشدنا تبين رشدنا في كل دين daa man lam yujibhu yanaalu halkan wa mu'tamirun yuthaabu bi xayri diini alal muxtaaru xuyira duuna maynin falam walam yaxtar bi xaqin nayla diini wa bilhaadina ducina xayra qawmin wa bilirsaali sudna kulla diini wa qul qurashi wa qul arabi tusaddaq wa sidqul qawli xaqan zeynu diini shafiicun safwatun barrun ra'uufun hudan yahdi lmadina li xayri diini wa fi lxajari alqadaau lahu shahiirun fa daaka alxukmu diinun xayru diini lihaadina nidaamun yaa mafaazan limuntahiji nidaamin xayri diini sabaqna man siwaana aya sabqin bihi dinna alacaadi kulla diini bihi dinna wadaana alxayru xayran wa sharran yaa ilaahi qawi duuni maam Seydi El Hadj Malick nag jóge na léegi ci milaat bi mooy juddu gi ak yi ci xew yépp ak li mu doon lim ci barke barkeem na yonent yëpp moom lañ ko amee ak mbindeef yëpp ndax ñëpp yàlla mu ngi leen bind ci barkeem muy wane mu mel ni danga ko laaj lan moo tax moom mu raw ñëpp mu ne parce que yàlla la amal audience boo xam ne kenn amaatu ko te kenn du ko ami mu ne raqaa dafa dafa yéeg dafa kawe fawqal buraaqi ci buraaq al buraaq la yéeg ila sama i jëm asamaan boobu destination kenn mosu koo am bi mu yéegee romb juróom-ñaari malaaka yi e, juróom-ñaari asamaan yi am na lu fa xew wa daana lahu toroxlul na ko almalaa'iku malaaka yépp ay diini gumu ci xeetu toroxlu mooy kilifa bu ñëwee noonu ngay ñëwee nuyu ko ñaari loxo walla nga sukkal ko wala nga raamal ko yonent bi malaaka yépp sukkal nañ ko nuyu nañ ko nga xam ne kon foofu moroomam nekku fa wa fil isra'i bi mu rombee malaaka yo nag ba yëg juróom-ñaari asamaan romba sidratul muntaha wa fil isra'i ci riñaan googu xaalu borom xam-xam yi nee nañ xayra haslin kenn kaful waxu dëgg la ñoom borom xam-xam yi nee nañ ulama u al mawla gis na yàlla face fas face hadis bi abbas ibnu euh, euh, abbas nettali na ko fa xattafa ci la ko ci la fa ci la fa wettee xayra diini ngën ji xeetu jaamu yàlla te mooy julli juróom jul jaamu yàlla goo gis jibril moo ñëw wàcc jox ko yonent bi muy azaka di aj di koor waaye yonent bi la yàlla invité ba mu ñëw mu toog ak moom face à jox ko kado moom ak xeetam yépp te muy xayra diine ngën ji xeetu jaamu yàlla yépp ngën ji diine ji mooy assalawaatul xamsi léegi audience boobu ci nga ci ah, nga baaxe yow jullit bi ndax julli julli gii nga xam ne dalay raxas foo toll te yow ba ko yàlla jox yonent bi fekke woo ko nga di ci bénéficié wu war ngaa sant yàlla moo tax góor gi ne alay war nañu alhamdu sant yàlla xamdan cant gu rëy xarra goo xam ne dafay sax xii nan ci jamono ndax lan moo ñuy sant yàlla mu ne shafaa an na dafa ñoo fajal mu muqaffi ki nga xam ne moo topp ci jeexitalu yonent yi kulla diini bépp jàngoro ju nekkoon ci ñun rek muy jàngoro ruux jàngoro xol ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar wallahu yaalamu ma yasnaun te mu ngi ko amee ci isra wal miraaj boobu kon nag fa nahmadu ñu ngi sant yàlla wa nashkuruhu di gërëm yonent bi dawaaman ba fow euh, mu ne mu ñëw nag léegi ci mujizaat yi parce que mujiza weesuwul gis boromam subhanahu wa taala yonent bi bokk na ci ay mayam ci ngay xamee ne du kenn kenn du moom ka kazal imxaalu euh, mun na lahu bi diini yàlla mi ngi war a sant di ko gërëm moo may yonent bi sallallahu alayhi ci jamonoy bekkoor bi diini ci taw bu baree baree bari ku jàng siira di nga ko gis arab yi bi ñëwoon fekk yonent bi xutba mu nekk ñu ngi lay yëgal ne cur gaa ngay dee ndax ñàkk tabaarakallahu lu ñu lekk ñaanal sa borom mu may ñu taw foofu yonent bi ñaan laata ñuy génn jàkk ji taw bi tàmbali na moo tax mu ne kadi kadil imxaalu ki nga xam ne nii may nañu maanaam jamonoy bekkoor mun na la hu may nañ ko bi diini wala mu may ñu ko kooku du como moom yonent bi sallallahu alayhi wa ab yonent la boo xam ne nii kaana nuuran nekkoon na leer xablal kaw ni lu yàlla lu njëkk yàllay bind kenn fa jaanin xabla wax yin mu mu wet nag lu jëkk sax ñu koy wax yu xulla diini bépp jikko ju rafet ak élévation moom yonent bi dépassé na loolu sallallahu alayhi wa ndax cëram boobu nga xam ne nii yàlla may na ko bi ko yàlla wax yoo bi mu amee quarante ans yàlla jox ko wax yu bii ataa dafa dikk ci àdduna fekk wal kufru kéefar fii jëwrin mu ngi ci caay-caay wa zulmin ak tooñante ku man sa moroom duma looloo xewoon bi mu ñëwee xeexul ak ñoom déedéet fa qaadal la dafa orienté ñëpp an diinin ci kéefar googu li diini yóbbu leen tabaarakallahu ci diineem ju sell ji te mooy jox yàlla sa bopp jubboo bëggante wasilatuna si xaj maay nee na suñu jokkuwaay bii koo dégg maan diw mooy sama wasila suñu wasila dëgg-dëgg mooy yonte yàlla muhammad nafa dafa dàq fi diini ci diina ji diinan ak doyadi wasilatuna suñu suñu suñu suñu wasila ci yàlla nafa dafa dàq tabaarakallahu fi diini ci diine ji e, nga xam ne moom lañu ñu nekke diinan lépp loo xam ne kufru la ak tooñ tabayyana moo tax feeñal leeral na rusduna euh, suñu njub gi wala na fi kulli diini ci bépp jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu feeñal ci tabaarakallah wala bokk wasilatuna aji ràmm suñu nafa dàqana fi diini ci diine diinan force maanaam kaay kaay forcé forcé nit laa ikraha fi diini qad tabayyana rushd min al ghayy nga xam ne kon iqtibaas la def ci aaya boobu moom sëriñ bi euh, laa ikraha fi diin qad tabayyana rushdu min al ghayy moo tax mu ne wasilatuna suñu way aji suñ jokkuwaay ci yàlla nafa dàq na fi diini ci diinam ji diinan forcing moo tax tabayyana leer na rusdana fi kulli diini ci bépp xeetu tabaarakallahu euh, euh, diine rek moom leeral na ko ci tabaarakallahu ba nga xam ne lépp luy alak nit yàlla musal nañu ci daa woo na ñëpp jëme ci yàlla léegi nag choix moo am man lam yu jibu ku bañ ne doo wuyu yanaalu di am halkan alkane yonent bi moo wax ci xadis ne kullukum yadxulul jannata illa man aba yéen ñëpp àjjana ngeen jëm lu ko bañ a dem àjjana ñu ne ko nan la nit di gise àjjana ak ni neexe bañ ne doo dem mu ne waaw ku ma topp dem àjjana ku ma bañ a topp yaa bañ wa mu tamirun képp ku nangoo topp nag yonent bi yu saabu dinañ la fay bi xayri diini ci ngën ji pay ajjana directement nga dem te ku fa dem di nga xam ne dëgg dëgg dëgg kër gu mel ni moom amul sëriñ bi ne alal muxtaar yi dëgg dëgg yont yàlla muhammad xuyyira tànnaloo nañ ko duuna may nin ci lu dul ay kàcc lan lañ ko tànnaloo euh, nday la diini mu am àdduna ak teraangay àdduna yépp mais walam yaxtar tànn ko bi xaqin ci dëgg waxtaara mawlaahu ismallahu xayarahu an zaxaari fi za zuhdin wa za chamami àdduna ni mu neexee ak tabaaraka yàlla yónni na malaaka ne ko boo bëggee loo bëgg ci ay montagne montagne yi wër màkk ak dina ma def ko wurus ak jama nga moom ko di ko jaay di ko dunde mu ne déedéet bàyyil ma nekk ab yonent rek doon taalube ba fekki la ndax àdduna amul solo kii moo gore daan na toog ay fan du lekk te ñàkk taxul ndax lu mu bëggoon mu doon la mu la mu bëgg tabaarakallahu topp ko ñun nag ñu ngi amee daraja ci ñu am ñun xeetu yonent bi ci barke yonent bi moo tax sëriñ bi ne wa bil haadi duina xayra qawmin wa duina ñu ngi ñu woowee bil haadi ci barke yonent bi xayra ummatin uxrijat linnaas ngën ji xeet wi nga xam ne yàlla génne leen ci nit ñi ñu ngi ko amee ci barke yonent bi wa bil irsaani yolli giñ ko yónni mu doon xayrul mursaliina sudna ci lañ doon sang kulla diini bépp xeet woo xam ne ni jiitu woon na fi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li ñu ko may mooy ursila ilayna xayru nabiyin sallallahu alayhi wa sallam ñoo tax mu ne lama daa allahu daai daaina li taatihi bi akrami rusi kunna akramal umami ban xeet la bokk mu ne waqul neel qurashi la xeeru xeetu qurashi la bokk fal urbu xayru unaasin summa xayruhum qurashuhum wa qul neel arab yi tusaddaq dinañ la wax dëgg la yonent bi arab la moo tax ñu war a respecté képp kuy arab ngir respect qurashi la moo tax kuy qurayshi ñu war leen respecté ndax qaddimu qurayshan wala taqdimuha wa sidqul xaw qawli wax ju dëggu daal xaqan mooy zeynu diini moom mooy taaru àdduna ak àllaaxira taaru àdduna ak àllaaxira mooy yonte yàlla muhammad taaru diine mooy yonte yàlla muhammad shafiun bu ñëpp jaaxle ëllëg ci maninun yawma zu ismin maninun moom yonent bi mooy rammu jàmm yi safwatun yàllaa ko sellal boppam filtre ko ba mu set wicc barrun mu baax lool raufun doon ku ñeewante jaami yàlla yi bëgg ñëpp sallallahu alayhi wa njub la ku ko topp rek mooy haadi ila siratika al mustaqim madina moom mooy moom mooy jubal képp koo xam ne topp nga ko li xayri diini ci gën ji diine képp koo xam ne diine woo nga lislaam moom moo lay orienté gën a yóbbu la ci ngën ji euh, mujj tabaarakallahu te mooy dem àjjana xayru diin mooy diinu euh, diinu na inna diina inda allahi al islaam yonent bi li lay wan ne kenn du moom moom it du kenn keroog bi mu amee trente cinq ans waa Màkka di werante Euh, ci kaaba gi ñu doon tabaxaat ba war a teg xajarul aswad ci palaasam mag ñi di werante giir bu ne ne ñun ñoo koy teg ñii ne duñ ko nangu boo leen ko tegee jël way wi ba faw ñii ne déedéet ñun ñoo koy teg ñoo ci gën a yey ndax ñoo ëppaluñ dépensé ñii ne déedéet ñoo ëppaluñ nàngam werante bañ nar a xeex gën a góor nag ne leen am leen xel boo leen fi tojantee ay bopp arab yi nettali ne da ngeen doon xeex ngir kuy teg nangam ak nangam dina doon gàcce te arab yëpp ci yéen la ñuy ñëw di aj si xam nga lu ñuy def nañu toog ñun ñëpp d'accord ci dara mooy ba la di baabu ba ñu janoog moom ci côté nord noor bi ku fa jëkk a génn rek d'accord nañu kooku àtte ñu mag ñi toog di xiix xiixat noonu ñu toogee ci saa yi yonent yàlla Muhammad na tëll ñoom ñëpp nag xam nañ ko koo ci gis bàyyi la ci moom ci wàllu mbokk ñu ne ah zakal amin lamin a ngi nële radina bihi xakaman d'accord nañu mu àtte ñu yonte yàlla muhammad ñëw ñu wax ka loolu ci waxin bu doon tey mu ne loolu rek ah loolu amul solo jël kaaba kaalaam euh, di foqati ci ci bopp bi jël xajarul aswad teg ci loxoom yu tëdd yooyu woolu giir ya ne kenn ku ne mën la jàppal tabaarakallahu ci benn laf ci kaala gi mag ñëpp jàppandoo ñu àndandoo ba fa muy tegu mu jël teg ci kawam coow la jeex mu ne leen lii moo gën a rafet kenn ku ne te yow yaa ko teg ndax ñen kenn ku ne yaa jàpp ci kaala gi te kaala gi moo yóbbu tabaarakallah mu ngi mel ni rek ku amoon loo xam ne ni mënta mat ñëpp nga yaatal ko lool ba mu mu mën a matale ñëpp nga jox kenn ku ne wàllam kenn du ne diwa ko lekk bàyyi ñi ci des waaw xel mu rafet moomu te boobu tolluwul fi mag ñi toll ci ay at war na laa wan ne yàlla war na koo mën a yónni ci mbindeef yi moo tax mu ne wa fil muy xajarul aswad qadaun am na fa atte lahu shahirun bu siiw a makka xam ko te fasaakal xukmu atte boobu diinun façon atte la boo xam ne xayru diini moo gën ci xeetu atte yëpp gisagoo bu mel noonu ndax jubale na famille famille lëmm jubale jubale na dëkku lëmm te amagul 40 ans bu doon tey dañ naan jeune la li haadi naa ñel na ku ñuy gindi si nizaamun organisation boo xam ne ni mooy diine ji diine ji euh, organise ka organise na ka yaa ma faasan maa ñee ku dugg ci diineem ji soobu ci yaa ma faasan woonaa texek li muntahi ji ku ngir te woo nizaamin diineem ji na xayri diine mooy gën ji euh, ngirte organisation boo gis ci àdduna bi ci gën mooy diine l'islam loolu tax sabax naa sut nañu man ku dul ñun ay ya sabqin gubu ci raw maanaam raw nañu kudul ñun ñun jullit yi raw nañu kudul ñun gé gépp xeetu raw bihi ci barke yonent bi dinaa ci lañu sutee tabaarakallahu ci lañ toroxalee a aadi non yi kulla diini gépp xeetu toroxal ndax ci barkeem lañ lañ àndal ku ne xam na ne sëriñ bi dina ci ñëw xare yi ñu xare ci lislaam amuñu woon force euh, financière wala force armement bu waroon a may ñu mën a gañe kenn waaye ci barkeem ak lumière am yàlla dimbali nañu bihi ci barke yonent bi dinaa ci lañu sute euh, képp ku ku mën a doon bihi dinaa ci lañu sutee ku mën a doon euh, alxayru keneen koo xam ne bokkul ak ñun diine wa daanal xayru xayran manam bihi dina wa daanal xayru xayran wa charran bihi dinnaa xayran wa daanal xayru charran bii ci barke yonent bi dinnaa lañ amee xayran ay taranga yu dul jeex wal xayru keneen ku dul ñun nag ku bokkul ci diine ji daana yaa ngi am charran musiba ak toroxte ndax képp ku weddi diine ji boo deewee safara nga jëm yaa ilaahi yow daal sama borom man maa ngi lay ñaan man si xaj mari xaw yi yàlla na nga dëgëral duuni doyadi gii nga xam ne nii doyadi naa ko ak tabaarakallahu ñàkk mat yàlla na yàlla dëgëral ñu xanaanun bal xanaanun yonent bi sallallahu alayhi wa xanaanun la nii ay synonyme la ay baat yoo xam ne ñoo niroo xasida bi yëpp ay diine ay ayn ay uyun euh, moo fi am loolu sëriñ bi def ko bind ngir orienté si ñi ñiy jàng pour ñu góor góor góorgóorlu rehausser seen niveau intellectuel moo tax mu ne xanaanun bal xanaanun bal bal xanaanun axil xaniini juróomi wax yépp kaar kenn la ko wax ci moom te benn bokk ceeg sa moroom li muy firi mu ne yonent bi xanaanun aw yoon la woo xam ku ci jaar dem ci yàlla mooy siraatul mustaqim bal li fi ne bàyyil loolu sax xanaanun yërmande la ba nga xam ne képp ku ci lab yàlla teral la àjjana bal bàyyil boobu sax neel xanaanun barke la moom yonent bi ku dul moom moo la ëpp barke moo la koy jox neel xanaanun yonent bi wërsëg la tabaarakallah woo xam ne ku ñëw ci moom mu sedd la bal bàyyil boobu sax xanaanul nel mooy matal kóllëre axil xanii ni yow mi ko sopp na nga xam juróom yii te bokk ci li ngay xam wa sunnatuhu kanamam gu tedd googu te ñun sunna liñ ci xam moo di e, sunna mooy at tariqatu waaye sunnatu dina firi al wajh kanamam gu tedd gi moom yonent bi te leer tu xajjilu dafay rusloo min bu duurin ci ay weer weer boo xam ne am na quinze jours buñ ko dajale woon ba mu doon ay weer yu baree bare bare li muy foor foor li muy leer leer bu gisee kanamu yonent bi day rus wala tatlub bul sàkku nag li haada ci ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa min xaniini ci koo bëgg déedéet wala tatlub li haada min xaniini bëgg tabaarakallahu bàkkaar wala tatlub li haada min xaniini di ko niirale kenn ko xam ne ni bëgg nga ko loolu bu ko def sallallahu alayhi wa sallam niroowu la kenn shafiqun kaana ummatuhu rahiman wa laysa lahu almushaabihu min xaniini shafiqun moom yonent bi aji sopp la ay aw xeetam kaana raximan ku yërëm la ummatahu xeetam ndax yàlla moo wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alay maanitum xarisun aleykum bil mumin raufun rahim wa laysa lahu lmushaabihu amul kuñ koy niraleel nag min xaniini ci mbaax ak yiw ak tabaarakallahu euh, mbégte yonent bi kenn du moom moom it du kenn xamoo ne madxul Moustapha tagg yonent bii may def man Cheikh El Hadj Malick fawzun teranga la maanaam texe la waxun koom la ci àdduna ak alaxira fa ma xarajun aw ma aw ma bàkkaar nag alayya min alxamimi bu bu ma feccee bu ma bu maanaam ku jugoon fecca ngir di feccal yonent bi sallallahu alayhi wa ci am bàkkaar ndax waxoon naka yaqul na ndax nu jawaarin daaribatin du fuufin laysa fi darbiha tallahi min idami Euh, maam Seydi Xaj Malik ne rasulun kullu xaadin ma ataana yafuuqu lada talaafi kulla duuni wa ahlul ulwi wa rusulaau turran ya ummuhumul imaamata gayra duuni huwa alxatmu alimaamu wa zuqtidaa'in makaanatuhu makaanatu duuna duuni wa duuna albadri duuna allahi xaqan jamiicu rusuli taclamu duuna xiini mazuunu alwajxi fal amtaaru faarat wa wallat bidducaa'i cala almazuuni sëriñ bi dafa wax ne rasulun yont yàlla muhammad ab ndaw la boo xam ne ndawal yàlla la kullu xaadin képp koo xam ne royna na maa ataana li mu ñu Euh, dana sut la daa talaafi ci bés bi nga xam ne jaam yépp dinañ dajeek seen boroom subhaanahu wa taala euh, kulla duuni képp ku fa kawe képp ku tedd rekk ku ma mu mën doon bés boo toppee sunna si yant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa boo demee ci xadra yàlla mu yowmal qiyaamati yàlla dana la fa teral ba nga am bépp xeetu teranga euh, yonent bi moo ne kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba sama xeet yépp dinañ dugg àjjana lu dul ko bañ ñu ne ko nan la nit di gisee teraangay àdduna àjjana ji ba pare di bañ mu ne man ataani daxala aljanna képp ku ma topp di nga dugg àjjana wa man asaani ku ma moy faqad aba yow yaa bañ moo tax mu ne rasulu ndaw la boo xam ne kulla képp ku topp maa ataana lim ñu indil ci alquran ak sunna yafuuqu dana kawe la fii ci bés bu ñuy dajeeg borom bi subhanahu wa taala duuni képp koo xam ne ku tedd nga loo tedd tedd wala nga bari fii teranga ci àdduna te toppoo sunna si yonent bi kooku dana la sut sëriñ bi ne wa ahlul ulwi xamoo ne ñi kawe ñoñ kawe ñépp muy malaul ala muy malaaka yi nga xam ne nangami milliards yi milliards malaaka ñoo fa ne war rusulaa a jamcu rusul la ak mboolem yonent yi di cent vingt quatre mille sëriñ bi ne turan tawkit la ma ne ñoom ñépp laa wax ya ummuhumu yonent bi dina leen jiite al imaamata ak njiit duuna duuni te ku ne xam ne ne njiit googu tabaarakallaahu doyadiwul cent vingt quatre mille prophètes yi bokk ci rek doy na cër malaaka yi niñ sellee ak cër biñ am ci yàlla doy na cër ma ne boo jëlee nangami milliards yi milliards yi malaaka kenn xamul nuñ toll nekk malawul ala cent vingt quatre mille prophètes ñooñ ñëpp benn patron lañ am mooy yonent yàlla Muhammad bàyyi si xaj bi rëy na mu ne déedéet xamoo ne huwal xatmu moom mooy xaatimu nabi yi na yonent yooyu yëpp mooy seen patron xaatim boo ko déggee mooy mu ngi mel ni benn caq kër ba niroowul ak per yi ci des caq lu mu rafet rafet lu perlage bi rafet rafet kër baa koy ëpp valeur yonent bi nag mooy xat mu imaamu mooy yilimaanu képp koo xam ne ci xadara yàlla nga jóge wa zuqtidaa in moo roy borom bi subhaanahu wa moo roy ndax yàlla moo ne ko fa bi hudaahu muqtadi toppal ci gannaaw yonent yi nga topp seen njub makaanatuhu darajaam ca yàlla moom yonent yàlla muhammad almak makaanata daraja la joo xam ne duuna duuni doyadiwul de déedéet déedéet nag duuna duuni doyadiwul sëriñ bi ne xamoo ne duunal batri duuna allaahi xaqan jamiu rusli taalamu duuna duuni duuna xiini ay duuna nga boole leen duuna ak duuni te benn bokk ci prix moom la Seydi Xaj Maay def dafa ne wa duuna ku dul yàlla rek ku dul yàlla kudul yàlla subhanahu wa taala duunal badri yées nga yonte yàlla muhammad ma ne kudul yàlla laa wax yaa ngi ci suufu yonte yàlla muhammad sëriñ bi ñu nekk li nga wax rëy na de mu ne xaqan ca dëgg laa wax de li ma la wax dëggit hmm? kon nag xaali gongo mu ne jamew ruus li laa wax xamoo ne mboolem yonent yi taalamu dinañu xam daraja jooju duuna xii gannaaw jamono gannaaw jamono mooy yowmal qiyaamati gis nga yaa ngi tudd nuux naan yonente la sab nu Maryam yaa ngi koy tudd naan yonente nga yonente la diw yonente la waaw loolu baax na ndax bu ñu bokkee turu yonente bi rek day mel ni benn lañu waaye yonente yooyu seen daraja li muy rëy rëy bis bu ñu dajeek yonent yàlla Muhammad ci euh, euh, ci ci maanaam ci yowmal qiyaamati ñu tegal ko benn chaise boo xam ne turbinu or la ak jamono ñu defal ko benn tant boo xam ne kenn xamul nu mu toll de Ahmed Tidiane dar ko ak ñi mu am ulama u sunna yi ak ulama u sharia yi dar ko yonent yi ku ko xool di nga xam maanaam ku xool ku gis sa morom xàmmee ko ku gis sa patron itam xàmmee ko donte yonent yi mosuñoo jàppane sax ñoom sut nañu euh, maanaam tolloo nañu ak yonent yi ba di ko sut dëgg la waaye keroog lañ koy gis ndax diw maa la raw kenn du ko wax ci ci xam-xam maa la raw ci xam-xam bala nga koo wax dangay jàngal ñu ko raw moom ku jàngal nag kaar téeméeri taalibe yoo xam ne kenn ko ne moo la raw bu bëggee bu waa ji bëggee ñëw di wax ak yow naan maa la raw ak raw ma la dalankaan waxal ak xale yi waxal xale yi yonent bi moo tax sëriñ bi ne wa duunallaahi ku dul yàlla rek duunal badri yées na yonent bi ku dul yàlla la wax xamoo ne jëmeew rus yi mboolam yonent bi taalamu dinañu xam lii ma la wax duuna xiini gannaaw jamono te muy bu àdduna tukki yowmal qiyaamati ci lañuy xam darajam baay aadama li muy bari bari daraja bu booloo mi daree ne ko yaay ñu juróon te ku sonn dem ci sa baay lijjantil affaire bi mu leen doom taluma leen li ma def ba génn àjjana bu ngeen juddu ci doy na ma lijjanti dem leen ci baay nuux mooy ñaareelu baay ñu dem ci góor gi nuux mu leen doom taluma leen dem leen ci yonent yàlla Ibrahima jege na yàlla ba yàlla ne xaritam la ndax man li tax ma tukkal àdduna bi ñaan ba ñëpp lapp loolu doy na ma problème ñu dem ci baay Ibrahima baay Ibrahima ne man kat damaa waxoon ñetti wax yoo xam ne xaw ma lu nu ko yàlla di gisee ndax waxoon naa yoo xam ne demewul na ma ko waxee dem leen ci góor gu ñuy wax Moussa ndax moom xaritu yàlla la ba yàlla daan wax ak moom euh, directement téléphone ñu dem ci Moussa Moussa ne leen yéen yëgu leen ne waaja maa ko dóoroon mu dee. kooku ma dóoroon mu de doy na ma lijjanti benn nit rek ku ko rey doy na problème dem leen ci góor gu ñëw Isa moom bañ na ko ba leeru yàlla lañ ko bindee ñu ñëw ci yonent yàlla Isa mu leen yëgu leen li xew ñii nekk ci église yi di di di ma ni ñu toll ma war rek la tey xam ngeen lu xew man nag dinaa leen may conseil gratuit ñu ne ko lan la mu ne am na ku ñëw afdalu xalqillah mu yont yàlla mu Muhammad dem leen ci moom hmm. yàlla du delloo kàddoom mbooloo mi yëpp nag ñooy def délégation dem ci yonent yàlla Muhammad mu génne janoog ñoom naan leen dal leen dal leen ana man la maay waa ji maa ko yor hmm. maa ko yor tey dem nag suufu aras doon sujjóot yàlla nekk jarul irfa ra'saka yëkkil sa bopp wa sal nga laaj toota ñu jox la loo laaj tey dinañ la ko signal washfa na nga ràmmuloo tu shafa ñu ràmmuloo la loo bëgg ñu defal la ko tey mu ne ah kon lii laa bëgg ak lii ak lii ak lii yàlla ne la nga wax loolooy wéy ma ne jamono jooju ak kàttan gu réy googu yonent yi koo ci laaj kuy waaja moom moo lay waxal boppam ne yonent yàlla Muhammad moo tax mu ne jëmeew rus yi taalamu dinañ xam lii ne waajay waaja duuna xiini gannaaw jamono yonent yàlla Muhammad ma zuunul wajhi ku rafet kanam la moom dafa wax ne boo amee soxla bëgg mu faju boo duggee ci mbooloo xoolal ña fa gën a rafet kanam kaar ña fa gën a rafet kanam nga wax leen soxla bi ñoo koy faj waaye fekk koo xam ne dafa mer ba kanam gi futa nga ñëw di ko wax sa soxla da nga koy tàddal moo tax waaja ne tabaarakallaahu boo duggee ci barab xoolal ña fa gën a rafet kanam ña fa gën a belli kanam ña fa gën a tàlli kanam nga xam boo leen jubee rek ñu ree nga wax leen ko parce que ñooñu amuñu stress waaye ki nga xam dafa fatta fas kanam gi na naj ko nal koo nal ba mari détail boo xoolee tiit kooku boo ko waxee soxla day yokku hmm. day gën a yokku ndax bu bu la ci tegalee ay soxlaay boppam defe naa ba ngay mujje fàtte sax sa bos yeneen bi nag melul woon noonu hmm. moom mooy koo xam ne boo ko masaana laaj day ree sallallahu alayhi wa ma zuunul yi ku rafet kanam la moo tax fal am taaru taw yi sax faarat daw nañu ngir barkeem hmm. yeneen bi toog na ci jàkk ji di xutba benn arab yi sàmmkat la jóge ca kaw ga ñëw nag xaw ma looy xutba waaye àll bi ñu ngi dee ñu ngi dee ndax maral jur yaa ngi dee tabaarakallahu ñax amatul dimbali ñu nga ñaanal ñu ci sa barke ci sa barke nga ñaanal ñu sa borom mu taw foofu mu taxaw nag toogul moom yonent bi dafa janoog asamaan rek ne nganam nganam ñaan yàlla ñu jekki-jekki digg naaj wu tàngala muy jamonoy treize heures jàpp quatorze ñu jekki-jekki gis ay niir yuy ñëw bii jóge fii bii jóge fii bii jóge fii ñu daje avant ñuy génne jàkka ji taw bi sóob na te gëj naa taw depuis daaw hmm. taw bi soob ba tooy xep ba kuy ñibbi da ñibbi ak tooyaay hmm. taw boobu nag vendredi la woon samedi mu continuer taw dimaas mu continuer taw lundi muy taw mardi mercredi ba jeudi mu continuer taw vendredi nag bi mu jotee nit ñi euh, doxaat ci taw bi ñëwaat julli ci juma juma jooju ñuy ñëw ndekete waa jooju ñëw na wala keneen yonent bi taxawaat di ba mu jugaat taxaw nekk xam nga lu ma lay yëgal bañ lay ñaan taw pour pour néeg yi daanu ak kër yi daanu taxul woon inondation bi ak ñuy rey ñaanal ñu yàlla taw bi arrêté yonent bi taxawaat foofu mu taxawoon ci ajjuma ga passé ne yàlla maa ngi lay ñaan wax wax la muy wax ñu jekki-jekki avant ñuy génne jumaa ji naaj bi génnaat mu mel ni niir yi dañ dellu fañ jóge woon hmm. naaj wi génnaat jant bi ne dàng moo tax sëriñ Seydi Haj Malik tënk loolu ne fal am taaru taw yi faarat daw nañ ci ñaanam wa wallat wane nañ gannaaw itam ba mu ne leen arrêté leen wane nañ gannaaw biddu a ci barke sababu ñaanu alal ma zuuni ci waa ji nga xam ne ku rafet kanam la tabaarakallahu euh, euh, alal ma zuuni ci ci niir yooyu nga xam ne ñoo ñëwoon tabaarakallahu keroog yonent bi ba mu ñaanee rek ca la taw ba sotti ba mu ñaanee itam cala taw ba euh, sebet fa bi gayri raybin samay dauna bi saain min ajini wa zul wa gullatuhum zaalat zuaaqun namirun saaiqun min zal amini yonent bi ku bari ay mucjisa la waaye sëriñ bi ci tënk dafa wax ne ñaata ñaata nit ñaata yoon la mbooloo xiif bay bëgg a dee ñëw ci yonent yàlla mu jox leen tabaarakallaahu ñu lekk ba suur ci benn ndab loolu xadisu jaabir ku ko jàng rek xadis jaabir ibnu abdullah moo reyoon benn benn bëy invité yonent bi ak abubakar ak omar ngir yërëm ko ngir xiif gu mu nekkoon ci xandak yonent bi woolu saxaaba yëpp lu toll ni mille mille cinq cent personne ñu ñëwandoo mu ne leen jaabir moo leen invité këram ci benn bëy jaabir tiit jaaxle bi mu ko waxee soxnaam mu ne ko ndax wax nga ko li nga rey mu ne wax naa ko ko mu ne ko kon mujisa la bëgg a def yonent bi mu ñëwee dafa ne nañ ma utal fukki ndab benn ndab bu ne mu sànni ci dogu yàpp dogu yàpp bi day mel ni dafa fuur ba fees tabaarakallaahu bool bi moom yonent bi mu woolu fukki nit ñu ñëw lekk ci ñooñu bu ñu suuree ñeneen ñëw su ko ñu di ko def ba mille cinq cent personnes yëpp kenn ku nekk lekk ba suur te loolu lu ndaw la lu toll ni tabaarakallaahu euh, euh, sa Euh, jël na itam lu toll ni àndaar bu doon tey ñetti kilo dugub mba ñaari kilo dugub ñu defar ko sunguf defar ko loo xam ne ni luñ mën a lekk la moo xam cereek yooyu des milliers de personnes lekk nañ ci te jeexul wata sëriñ bi ne nafa dàq na éliminer na juuxal ulufi xiifuk ay milliers de personnes bi xayri ray bin ci lu dul sikk kan moo def loolu mu ne samay daaw naa suñu sanga bu tedd bii bisaa in lu tolloog àndaar rek min ajiini ci sunguf moom la jël def ci kéemaan googu ñaata nit ñoo ñëw nekk suñu teen ba ñu gas dafa ndox mi dafa wex a wex ba kenn mënu koo naan yonent bi tufli ci tabaarakallahu mbaa mu wala dem ne leen dem leen ne leen ko yonent bi nee na na nga neex mu mujje neex ba tabaarakallahu ñuy jëli ji ndox fu ne maanaam ñu koy jëli jee fu ne moo tax mu ne wa xullatuhum seen mar bihi ci barke yonent bi zaalat dem na maanaam fekk na ay nit ñu mar def na sax kéemaan mooy fekk nit ku mar mu mar làmmiñam kooku jaare fa mandi moom waaye itam zuaqu ndox mu naqari namirun mujje naa nekk ndox mu neex saa iqun di neex lool ci boli min amini ci barke yonent yàlla muhammad bihi ci barkeem moom yonent bi ci ay kéemaan faara ci la fuur maanaam di ci la fuur ba fees del rakkaaya ay teen yoo xam ne nii amul woon dara wow koŋ teen yoo xam ne rakiyatu la jamu rakiyatin mooy rakkaaya teen boo xam ne amul ndox dafa wow koŋ nga xam ne boo ko tiimee di ko xool ndox muy lerax lerax nga ciy gis yonent bi taxaw euh, maanaam jàpp ci mennam ndox sotti ko ci teen boobu ne toog leen tuuti dina fees ñu jekki-jekki ndox mi fees bay waaj tuuru te kenn xamul kañ la gëj a am ndox moo tax sëriñ bi ne bi ci barke yoon ci faara ci la fuur rakkaaya ay teen yoo xam ne amul woon ndox loolu ci ay kéemaanam la bokk na ci kéemaanam suqa xar nañu euh, badrun maanaam euh, weer wi weer wi nga xam ne sori gi kaar kenn xamul fu mu ne euh, yonent bi sallallahu alayhi toog na xar ko waa Makka ñoo daje ne ko boo bëggee ñu gëm la xaral weer wi yonent bi toog fi mu toog wax li muy wax wax ak boroomam ñu gis weer wi def ñaari xaaj bi jaar fii bi jaar fi yàlla ne iqtaraba ci saatu wan shaqal loolu nag ci histoire yëgaatuñu keneen ku ko def bokk na ci ay kéemaanam moom rek la ñu dëkkat moom lañ defal opération chirurgicale boobu xewagul ci jamono yonent bi survivre dundaat toog loolu defu ko benn yoon defu ko ñaari yoon defu ko ñetti yoon defu ko ñeenti yoon si xajmaay ne ne juróomi yoon dal na ko ko te benn bu ci ne jibri lay ñëw xar dënn bi raxas ko defal ko entretien delloowaat ko euh, raay ci loxom mu wér doo fa gis benn fissure buy wane ne lii lii mas naa xew fii wala nga gis ci benn góom boo góom léget bu lay wane lii mas na mas naa am fii moo tax mu ne ka shaqi sadri comme ni ñu xaree dënnam ha an juróomi yoon duna diine te amul benn mettit bu ko ci dal wala tabaarakallahu benn léget bokk na ci miracle yu bi waru ba bahimatin bari na bàyyi ma boo xam ne shahidat seedel na bi xaqin ci dëgg risalatahu euh, euh, maanaam message am euh, toog na ba yàgg benn kéwél daw ñëw ba tolloog moom ne ashhadu laa ilaha illallah wa annaka rasulullah nit ñëpp di dégg mbëtt moo xam ne deewoon na ca suba tabaarakallaahu ñu butti ko yi tegu nele boroom yendoog moom ba ngoon mu dajeeg yonent bi ne ko bu ma la bu ma la gëmee mbëtt mi moo la gëm yonent bi nekk mbëtt mi kay pour mu gëm ma yomb na wàccil mbëtt mi waa ji wàcc mbëtt mi arabi bi yonent bi teg ci loxoom raay mbëtt mi dekkiwaat commencé tëb di dal mbëtt sax même bu doon dund warula la mën a wax luñ dégg mbëtt mi yonent bi janoog moom nekk man ana yaa dabbu man la kan yow mbëtt mi mu nekk ko anta rasulullahi xaqan Euh, nga xam loolu même ba tey doon dund sax euh, euh, waxuñu loolu waxatuma la koo xam ne deewoon nga depuis ca suba ñu dajeeg yow ci ngoon li xew moo tax mu ne wa rubba bahimatin bari na bàyyi ma boo xam ne shahida seede na bi xaqin ci dëgg risalatahu ak message am muy ak yónnantam kama dabbin dinaa la ci siital rek maanaam mbëtt mi nga xam mu bii nii leeralal na yonent bi nekk ab yonent yonent bi mas nay doxantu ci àll bi dajeeg benn kéwél kéwél gi benn waay moo ko eh, jàpp di dem di ko yóbbul tabaarakallahu ay bokkam ay eh, ay doomam kéwél gi dey yonent bi wala boog yonent bi dafa ñëw fekk kéwél gi ñun yeew ko ci benn garab waa ji ko jàpp moom tëdd di nelaw kéwél gi nag wax ak yonent bi ci làmmeñ wu leer nekk yaa rasulallah dooma dimbali dama doon wut wuti ji lu ma lekk pour nàmpal samay doom dama am doom ci jamono yii kon kéwél gu jigéen la ma waaye doon ñibbisi nag bi ma lekkee ba suur doon ñibbi pour nampali sama waa kër kaar waa ji dajeeg man ci dogalu yàlla fas yéene maa yóbbul njabootam ma bëggoon nag boo ma mënoon a garanti ma nga tekki ma ma dem tabaarakallaahu ci xale ya nàmpal leen tàggook ñoom ne leen dogalu yàlla ñëw na ci man dellu sewaat fii nga delloo ma fii ma yow di nga ko def dina ma gënal mu ne ndax bu ma la yeewee dinga dem dellu si mu ne ko ah yàlla na ma yàlla duma bu ma naree wor sama kàddu ci yow yonent bi yeewi ko kéwél ga dem yonent bi taxaw fa nag taxaw fa ab diir ba kéwél gi nàmpal ay doomam yeew yeewi leen doom yi commencé jooyoo ne yaay da ngay dem bàyyi ñu mu ne leen yonent yàlla Muhammad laa teg fële mu ngi toog di ma xaar sañu maa toog daw nag di ñëw bi muy daw di ñëw mu ngi cëppi cëppi ndax bëgg ñëw ba tolloog yonent bi bi yonent bi ñëwaat nag doon ko yeewaat foofu ci la waa ji yeewu gis ko xàmmee ko ne ko yaa rasulallah da soxla gé euh, kéwél gi mu ne ko déedéet nettali ko li xew mu ne ko comme nag def na lii euh, bàyyi naa ko ngir ngir sa jëmm mu yeewi kéwél googu ci jëmmam euh, ngir jëmmam kéwél gi nag di cëppi cëppi tabaarakallahu di dox doxi jaxaay di way yont yàlla muhammad di seede ak kennam ak kennuk yàlla subhanahu wa taala moom la sëriñ bi tënk ne wa zabiyatuhu kéwél gi taxawana wottu naa wor yonent bi fii fa in matal kóllëre dem doxi ji soxla ñëw ba mu mujje gi mu jural ko mbaal baal goog ñu ko baal bokk na ci miracle yonent bi bi mu ñëwee ci mun a munawara dafa amul woon minbar bu muy taxaw euh, di julli maanaam di xutba tax mu jëloon benn ëkk gu wow daan ci taxaw di xutba bañ ko defaralee minbar nag mu bàyyi ëkk googu kaar euh, dem taxawi ci minbar ba dañoo jekki-jekki euh, ëkk ga yuuxu yuuxuk nit mel ni nit kuy jooy ñu koy nax euh, saxaaba yi dégg ko jaaxle yonent ci bi wàccaat foofu teg loxo di wax ak moom wax joo xam nit ñi dégguñu ko ginnaaw gi lañ xam ne da ko doon nax ba dig ko ne ko di nga bokk ci ëkk yi nga xam ne dinañ leen saxal ci sama kër ci àjjana boo muñee ci lay soog a muñ moo tax góor gi ne wa kaanal jisu gis nga ëkkuk tàndarma gi dee ba wow koŋ shawqan ngir bëgg gum bëgg yonent bi min xaniin ak ak cofeel da doon jooy waaw koo xam ne ni jooyloo nga ëkk moo tax keroog fa kay fa man amanu billahi rabbihimi yonent bi sallallahu keroog ba mu faatoo ñépp doon jooy ñu ne leen waaw loo leen ñu ne koo xam ne ni ëkk mooy jooy ngir yow kooku wax dëgg yàlla bu nit ñi jooyee ñu war leen a mën a nag nangu loolu euh, bokk na ci ay miracle moom yonent bi bi ko yàlla defee yonent mu gën ci àdduna te dul di nelaw dafa jël daawo bi fu ne mu jotale ko ci àdduna bi ñi nanguwula tuub nag te xam na ne ku tuubul ba dee safara nga jëm mu àttana jël jaaseem ngir yërmandeem gu bari kaay dem àjjana di xeex ak nit ngir mu dem àjjana xam nga loolu kenn mës koo def yonent bi mbaa xam tax na muy jël xeex maanaam jaas yi di xeex ak ay noonam pour yóbbu leen àjjana euh, moo tax mu ne wa haajara kulla di bagyin bagyin bi hijratihi li biinin xayri biinin wa fi lgaari alajaibu baadiyatun wa salma lilanaakibi wassujuuni غناء الجن أطرب سامعيه ويعلم ركنه من والمصون غزا الغزوات مردية الأعادي وكلهم على هود وهون yonent bi bi mu nekkee màkka bi wooteel yàlla ñu bañ na duñ ko gëm dafa ne dafa gàddaay gàddaay googu yërmande la moo sëriñ bi ne wa haajara gàddaay na ku kullazi bax yin képp koo xam ne danga nga beew xabi yin ba pare dof dala bàyyi foofu muy abu sufyaan ak mag ñooñu fa nekkoon abu lahab ak ñooñu bëgg ko tere woote bi gàddaay na képp koo xam ni danga sàggan bi hijrat yi ci gàddaayam li biinin jëm ci palaas bu sori waaye yàlla jaral ko fi mu jëmkat du n'importe quelle place xayri biin yi moo gën ci barab yi moo gën ci palaas yu sori yi te gis nga tey ba tey fa la tëdd bi muy dem nag waa dëkk bi topp ko mu bañ a feeñ tax mu dugg ci benn xunt di fa nëbbu yàlla yabal fa tabaarakallaahu jargoñ yebal fa ab pitax ngir ñu nëbb ko moo tax sëriñ bi dafa fil xaar yi nekk ne ci xuntuma ajaa ibu ay kéemaan baadiyaatun yu feeñ wasal laajal rek maalil anaaki bi jargoñ li laleen ñeel wa sujuuni ak petax yi ci ay sab ku ne xam ne ne jargoñ néegam gaaw na yàqu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam la duga yàlla yabal fa jargoñ tabaarakallaahu mu def fa lënd boo xam ne boo ko xoolee da ngay foog ne am na téeméeri at mu yabal petax mu petax fa kër goo xam ne euh, tàgg goo xam ne dangay foog ba pare jur fa ay doom ñu neen lii de petax mu gën a gaaw ci bu euh, gaaw a naaw ci bu gisee nit néegu jargoñ moo gën a gaaw a yàqu ñaar yi yonent bi mënu ko romb di ci dugg ko nekkul fii bi ko waa màkk toppoo ba foofu fa lañ mujje gisee tànk yi waaye lii ne ci bunte bi tax na ñu ne mënu fee dugg léegi ñu découragé dellu seetatuñ ko ñu toog ab diir nag dégg benn euh, euh, ay jinne yuy way maanaam dégg son boo xam ne kaar ci suñu jëmm yi wa ahlu makkata lawla al jinnu maa alimu ayna ntaxaa daafiul awzaari wa niqami loolu la sëriñ bi waayat fii nee na xanaa ul jinni xinaa ul jinni wayu jinne yi atraba ñoo feccaloo ñoo bégal saamiihi ñi koy ñi koy déglu jazallahu xayra naasi xayra jaza yi rafiqayni xallaa xayma tey ummi mabadi jinne yi ñoo doon woy loolu di ko baamtu son bi nag di ñëw ba ci noppi waa Makka waa Quraysh ñu soog a xam ne yonent bi kon Madina la jublu moo tax mu ne wa yaalamu ca la xamee ruknahu ay mbokkam aw nitam man wal suuni jubluwaayu yonent bi keroog lañ ko xam ci way yooyu <clears throat> ba mu demee installé tabax jàkk léegi nag jullit yi dar ko mu am armée bu dëgër léegi nag ci la commencé def leen face gaza mu commencé xare al gazawaati ay xare murdiyatun xare yoo xam ne daf ci alak aad yi noon yi wa kulluhumu noon yëpp ala huunin ñu ngi ci doyadi wa huuni ak toroxte ndax fuñ ci dajog ñoom mu duma leen bihaa ci xare yooyu al abtaalu seen jàmbaar yi zaarahumu ziyaar na leen saxaarun ak tuuti dañoo tuutee tuuti ñoo doon wax ne ñoo mën ci arab yi ñoo doon wax ñoo ñoo mën ci góor ñi waaye ku ci dajeek yonent bi ci ay daw lañuy ñuy mujje jàmbaar nag bu demee bañ koy niraleeg yàmbar euh, la ko dal rëy na ñu ne waaw xanaa ñoom tabaarakallaahu dañu amul mbooloo wala dañu amul ay armement mu ne ma yux niihumu jariñ ñu leen aalil quruni kër yu rëy ya ñu amee woon ak kër tata yi déedéet jariñu leen dara ak seen tabaarakallahu armement bi ak seen mbooloo mbooloo mi li muy bari bari ak li ñuy ëpp ëpp mbooloo jullit yi jariñu leen dara ñu ne waaw xanaa dañu amul ay mbubi koŋ yoo xam ne nii gilet anti-balle la waaw sëriñ bi ne wama yu wala yux nii duruuxu seen mbubi koŋ yi am nañ ko kay waaye da leen jariñu dara walal awaal yi tata yu kawe yi nga xam ne ku ci xës dugg a tëju kenn mënul dara ah kay am nañu ay jaasi jaasi yooyu ñu amee woon wa maa lahumu la amoon ci min xusuuni ci ay armée ak ay jaasi ak tata te fàllala dafa mujj a dammatoo julli ci jaar seen kaw duma leen bi ci gën a yéeme rek mooy xaswatu badar xaswatu yi julli trois cent treize personnes lañu yéefar yi mille et quelques personnes wala taajab waaye dañoo mujj a daw wala taajab bul yéemu ci li leen daxul dawloo keroog ndax wa yawmal badri bésub badar boobu bul yéem li tax ñu daw ndax jaa oo dañoo dikk ñan ñoo dikk mu ne junudullahi laa wax armeb yàlla ñoo dikk min amril muini ci ndigalu yàlla mi nga xam mooy dimbali jaamu yàlla moo yebal malaaka yi jibril ak tabaarakallaahu renfort am ñu ñëw participer ci xare bi nee nañu maximum deux heures de temps jullit yi duma nañu yéefar yi ba ñu daw bés boobu xew-xew yu rëy am na ci ndax saxaaba yi nee nañu gis nañ jibril ci bët mu war fas tabaarakallahu bu ñu xayzum naan kaan gaawal gaawal gaawal moo tax mu ne waqad samia dégg na saxaabatu saxaaba yi xawla jibril mu naan yaa xayzum yow xayzum muy fas wu weex wu mu waroon aqdim gaawal ñëwal bil mazuni tabaarakallahu ci borom teraanga ji wala bil mazuni bi ay bi surati ci gaaw kon xam na ni ñoom yëg nañu ay renfort jullit yi nee nañ bokkoon nañ ci li leen xamal ne malaaka yi ñu ngi seen biir dangay ngay mal benn yéefar dem ba di ko rey nga jekki-jekk gis mu tëdd nga gis ne am na invisible bu la jiitu ci moom bokk na ci li ñu yëg euh, malaaka yooyu ñëwoon di participer ci euh, euh, xare bi wa duunahumu nekk na ci seen bopp alama imu ay ay ay alama imu maanaam ay kaala waxiya te kaala yi bii dun dafa weex kaala yu weex tal kaar lañu lañu kaala woo na nazalu te wàcce nañu min al xarbi shutuuni ci xare bu tàng jër ñoom saxaab euh, euh, malaaka yi ñu wàcc ker téere yi nee nañ keroog la malaaka yi masa xeex ak nit ñoom buñ masaan di ñëw dañ daan alak benn dëkk rek mu jeex waaye ñëw daan dañuy dóoranteeg ay jaasi wax dëgg yàlla mënoon na leen ci bañ a fekk waaye seen tarbiya lañ doon def bokk na ci li saxaaba yi dégg ci bis boobu waasuwaatul xuyuul yi nee na baatu fas yi ruudu barqin da ngay foog ne dënnu melax la gis nga bés bu melaxee euh, niir bi xonq maanaam ñuul kuk tabaarakallaahu muy taw jekki-jekki melax yi naan xuy dënnu yi di di tiital tabaarakallaahu xale yeeg mag ñi gis nga seen fas yi noonu la doon yuuxoo ci bésu badar ba boo déggee fas yi da ngay daw ba fàtte say dal fa taanul xar bi gis nga fitna ji xar bi euh, maanaam guerre bi am yées maanaam bruit bi bruit bi ak yuuxuy jàmbaar yi ci bésu badar yées nii dafay dafay dafay xeeb biir ruuxu nii tabaarakallahu ci ay son son boo xalaat rek mu war laa mën a tiital bésu badar boo ko fekkee woon fàtte loolu tabaarakallahu euh, nga gis ne bésu badar moo tax yàlla tudde ko yowmal yowmal furqaani yowmal taqal jamaani xare bi mu amee ba daan ba jeex lan moo xew Seydi Haj Maalik nee na wa yowmun bés la boo xam ne xat sa tasajjada sujoot na fii xam xamdan ngir sant yàlla jullit yi ñoo sujoot mu ne déedéet waxuma jullit yi ñu ne ah pourtant jullit yi am victoire alaaj Maalik ne déedéet xaraabi bun baaxoñ yi baaxoñ yi wa nasrun ak tan yi ñoom ñoo sujjootal yàlla ngir bég fi'la nuun yi ci jëfu jaas yi ndax ku ne xam ne tan medd lay dunde xëy na ñoom tan yi gëjoon nañoo am medd muñ dund lool mu yàggoon yéefar yi ñu leen fa bàyyil nag nga xam ne rey nañ leen ci ay jaas yi jullit yi dem ñibbi bàyyi leen fa tan yi ñoom ñoo bég ndax am nañu lu ñu dunde dañoo lekk ba suur moo tax ñoom ñu sujjoot baaxoon yeeg tan yi ngir sant yàlla ci teraanga jëm leen defal Euh, wa uthmaanun yonent bi dëgg-dëgg daal jàmbaar la jàmbaar la bi alwaaxil ahaad yi xamoo ci euh, euh, maanaam alway noon yi yaxuttu lay bind bi anwaanin ci ay xeetu nun kamisi ni comme maanaam jaasi ni mel lii siaara la mubaalaxa ku ne xam na ne kuy bind écrivain boo gis muy bind day amee plume tabaarakallaahu tiim ardoise wala wala wala feuille di bind Seydi Hajj Maalik nag ne li ñuy bind mooy benn lettre bu ñuy wax nuun nuun nga xam ne day xaw a rond tuuti moom la niraleeg euh, ñiy bind écrivain yi ñooy saxaaba yi plume yi ñu yore mooy jaas yi day bind fan lay bind ci alwa yaram yi yéefar yi yaram yi yéefar yi lañ def espace bu ñuy bindee lan lañ ciy bind day day mel ni nuun maanaam day jam moom moom jullit bi dafay jam biiru yéefar bi ba pare bocci ko noonu mu koy ëlbatee noonu la nuun di ronwe oto sëriñ bi indi ko muy wasf baliir yéeme na lool tabaarakallahu xatta tax duñ ko bëgg yaatal mu ne walil xajjaaji góor gu ñoo xajjaaj waddu ali yi dañoo mel ni ñoom ñoom saxaaba yi bi ñuy xeex ak yéefar yi dañ wamil walil dañoo mel ni xajaaj waddu ali naqtun ci buy buy tomb wa shaklun wala muy maas bil quraani ci alquran wa bil qatini ak tabaarakallahu téere yi ku ne xam na ne jàngal na lii tawriya la tudd muy ixdal xusna yéeni ci balaax ñaari wax la ci jàngale xajjaaj euh, ibnu yusuf al thaqafi moom moo inventé command euh, commandant wu police la woon ci lislaam ci jamonoy Abdul Malik ibnu Marwan moom bi jullit yi daan jàng alquran bu njëkk alquran amul woon ay tomb ba nga xam ne ta diggante na ak ta ak ya ak sa kenn mënu woon a xàmmee tere rek la daan doon ja ak xa ak xa kenn mënu leen a xàmmee ak yi ci des yëpp moom mu ne lii nag mënta wëy moom moo créé ay tomb créé lu ko ba tabaarakallaahu alquran ji ñu def ko ci ba léegi xaraf bu ne nga mën a xam différence am ak moroomam noonu mu doon tombe nag araf yi dangay ngay jàpp ne saxaaba yi noonu lañ doon tombe yaramu yéefar yi te mooy di leen jam chaklun abul aswad addu ali moo ko def mooy naxwu sidna ali moo ko wax ab unzur hada naxwa abul aswad addu ali zalim ibnu amr addu ali la tudd kooku tabaarakallahu moo fent xam-xamu maska lu ne mu war lu ñuy rafaa mu ñu xam fu muy nekk lu ñuy Euh, tabaarakallaahu kasra ñu xam fu mu nekk maanaam nasb mu xam fu mu nekk ak atey ci am yëpp tabaarakallaahu noonu nag ñu daan maase ak di tomb saxaaba yi noonu lañu def tabaarakallaahu ci yaramu yéefar yi kon seddul ci ñoom yonent yàlla muhammad xuseynun dafa mel ni benn benn jabal maanaam xuseynun dafa mel ni benn montagne euh, lil aadi ci noon yi yonent bi daal tabaarakallahu musiba la ci ay noonam ndax buñ ko gisee dañuy tiit wa huwa waaye jawdun tab la la dal ahbaabi ci ay soppem taw la boo xam ne jawdun taw la boo xam ne ni yëzri day xeeb sax bil wutuuni ci taw buy dotti ala innama yumnaahu sayfun wa rahmatun bi biya ay naat qabla al awaani naxiilu moom la sëriñ bi way ci laam yëba waaw xeex bi ba kaña dañuy xeex ba kaña mun a déet xeex bi jur na njariñ keroog ba ñu xa euh, ñu ngi commencé badar ci lu officiel ñu ngi jeexe tabaarakallahu taayif euh, ñëw tabaarakallahu jeexe tabuk waaye laata jamono jooju euh, yadxulu ida jaa nasrullahi alfatxu wa rayta annas yadxuluuna fi dinillahi afwajan fa bi bihamdi rabbika wastaxfiru u kaana tawaaba réussir na mission ndax yéefar yi dem nañ ba xam ne waa ji neexul a xarel ndax koo xam booy xarek moom ay malaaka ñooy ñëw duma la kooku wax dëgg yàlla neexul a xarel xam nga lu xew ñoom ñëpp ñu ñëw nag tuub ne ashhadu lañ ko bañaloon màkk mujj nañ ko koo nangul ndax ay jaasi yu tar ci seen kaw moo sëriñ bi ne waqat daxalu dugg nañ nag bi diini laay ci diine yàlla ji faw jan def ay délégation wa afwaajan ak i kuréel ala xasalil xafuuni ngir ragal de ngëm sax taxul waaye xam nañ ne lii dina leen jeexal ndax waa ji kat am na une mais cachée bu topp ci gannaawam koo xam ne ku mu àndal nga dum ku ku ku xeex ak moom mu duma la euh, bu ko defee nag bi mu demee ba ñëpp nangoo tuub mu arrêté nag xeex bi ci waxin commencé di leen jàngal diine waaw ñu foog ne nag xeex ya leen tuubloo woon ndekete fa lay yem ndekete alquran ji mu bëgg a jàngale ak aaya yi moo raw sax jaasiya ci seen xol yi moo tax mu ne wobil gazawaat yi ci xare yii la xeexeek ñoom ba ñu tuub wal ayaati ak aayay alquran yii jaa u moo leen indi am na ñoo xam ne jaa u bil am na ñoo xam ne jaa u bil ayaati alquran ngay dégg rek mu leer na lii du waxu nit mu def ci yow lu mel ni jaasi bu ñu dëbb ci yaramu nit am na ñoo xam ne tiitaangee taxoon ñu dem ba xam ne jaas yi ku bottuwul dina la rey ñoom ñëpp daal alaakul kulli xaal ñii nga xam ne jaa bil jaau bil xazawaati ñi nga xam ne jaau bil ayaati ñoom ñëpp daal ñëw nañu tuub si waaye bi ñuy tuub si am na ñuñ fa fekk ñañ fa fekk mooy lan ñi nga xam ne xeexuñoo ñoom kenn waaru leen waaye dañoo gis yonent bi rek mu rafet lool ñu bëgg ko ne xaw ma lu xew mais haadal wajhu laysa bi wajhi kaddaabin kii de du waxu kuy nar ashhadu an laa ilaha illa wa annaka ñett ñi kon ñoo ñoo tuub ñi ragal ay jaasi ak ñi gëm yàlla ci alquran ju yéeme euh, ak ñi nga xam ne ni mbaaxu yonent bi ak leeram moo leen tax a tuub euh, wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara wa liman ajaabu bi xayri xaylin wala xaylin xayrin nayru xayru marabi moo tax mu ne kama jaau ni ki mu dikkee tuub si minal wajhil mazuni ci kanam gu rafet gu yonent bi am ak jikko ju rafet jikko ju rafet jooju mu amee ku laaj mu jox la ku ko tooñ mu baal la ñu bari loo leen tax a tuub waaw léegi diina ji jeex na yonent bi kon mission jeex na yàlla wàcc ci moom isa jaa nasrullahi wal fathu wa raayta nnaas yadxuluuna fi diinillahi afwaajan bu boobaa fa sabbix bi xamdi rabbika wastaxfirhu inna euh, fastaxfiru innahu kaana tawaaba diina ji jeex na mu dem xaswatu euh, dem xas xajjatul euh, wadaa jóge fa dem arafa taxaw fa def euh, tabaarakallaahu xutbaam bu yéeme boobu demaat munaa def xutbaam bu yéeme boobu ñëw xadiru xum dénk njaboot gi aw aw ay ay nitam dem nag ba mu ñibbee ne yàlla digal na ko mu dem ziyaare ji wa Uhud dem ziyaare ji baqiul xarqat ba mu fa jógee ñëw la boppam commencé metti mu tëral ko nag quatorze jours mu feebar tabaarakallaahu faatu dee bàyyi fi njabootam waaw ndax diine ji dafa fay Seydil Hadj Malick ne fayul ndax wan naa ba wuutu na bi ci yonent bi gannaaw bi mu faatoo am victoire boobu albuduuru ñoo xam ne seen kanam dafa mel ni weer li muqtadihi ci ku leen roy muy Aboubacar Siddiq moo njëkk a toog Omar de tegu ci Ousmane Ali dañul nag ba tey jii ñu ngi dégg ay xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii rubu'il am alam ilaahi yàlla daal dëgg-dëgg jaasi yéen yàlla nag ñu fayal xayrul quruni ngën ji àndandoo muy ngën ji génération yonent bi moo ne woon xayrul quruni xayr qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ñooñu ay gor lañ woon ndax diine yonent bi ba mu faatoo ñu fa yemoon yëpp yem fa waaye humul xulafa ñoo wutu yonent bi muxtaazu ñoo laq almaali kawe ñoom ñu kawe lañu adulun ñu màndu lañu xassanu ñoo rafetal istixlaafa diini kuutaayu diine ji ba tey ku faatu keneen donn la nga jàngale sa xam-xam keneen donn génération par génération ba tey jii mille cinq cents ans après yonent bi wala quinzième siècle ñu ngi fi ñu dem ba quinzième siècle bi di waaj xaaj tabaarakallahu te diine ji euh, dara dara dara euh, manquew ci te yonent bi moo ko waxoon la zalat taifatun min ummati zahirina ala alxaqi yonent bi dane saxaaba yi dalal leen seen xel lu mu metti metti metti bu àdduna ñeenti fan bu ci desoon wala benn fan yàlla dina yebal kenn ci sama njaboot tudd sama tur baayam yor sama turu baay mu doon imaamul mahdi ñëw yeesalaat diine ji balaa wàcc bala fee jóge insa nu mariam dina ko fa fekk julli ci gannaawam diine ji fekk insa wàccaatul dara du ci semma dara du ci yàqu la mu waxoon quinze siècle après moo nekk ni mam sayda haj malik ne xanaanallaahi ñu ngi mësul ci yàlla min jin ci soobu ci yoon woo xam ne siwaama bu dul boo xam ne xadin tahëju ci lañ jaaroon ñoom wa min charril ñu ngi musalu ci àndandoo bu bon bii di seytaane dëgg-dëgg yàlla ñu ci yàlla musal jaar daal ci yoon wudul sunna yàlla ma ci yàlla musal ilahi fajal ahlana ahla gurbatin wa ahla ittibaai sunnatin fi tarahum jaar ci yoon woo xam ne seytaane moom la rëdd yàlla ñu ci yàlla musal dëgg dëgg dëgg way bi tënk na yonent bi ci biir ak ci kon nag way bi sëriñ bi ne mada madax nal Moustapha tagg nañ yonent bi da cee dugal képp koo xam ne yaa ngi koy taggi ba addunay tukki wala nga koy jàngale yalañ ci yàlla boole euh, tagg nañ yonent bi ma mas nan aw way ajiban bu yéeme waaye way wi yéeme na ah, ku ko dégg war gëm ne yéeme na waaye ndax da nga koy puukareewoo mu ne déedéet li yaxfira lil dama bëgg yàlla mi jéggale jéggal ma bi yow mi diine ci bésub diine ba muy bésub fayante ba maliki yow mi diin na ma jéggal ban bés ngay wax mu ne mun bés la boo xam ne qamtarirun tàngana lool te naqari deret zamharirun seddana lool abuusun dafa ñëkk charruhu ayam daal xif naa ragal nañ ko wala boog xif naa charrahu muini yàlla yow mi may dimbali ñemeew ma ko de mu ngi mel ni nit koo xam da nga daan digg gis ko mu fas kanam gi ba doo ko ñeme moom la Seydi maa ngi wax ne bés penca ragal na torop kanamam ni mu ko fase ndax naqari gu mu naqari ilaahi yow sama borom yaa ilaahi laa wax yaa ilaahi ilaahi nasaluka maa ngi lay ñaan loolu daf ko xasaf tawbatan tuub xablal manuuni lu jëkk a may dee nit moom lu mu bari bari ay bàkkaar bu ko tuubee te mu dëggu ci moom balaa dee day mel ni mësu koo def ci baal gu ko yàlla nara baal ilaahi yow sama borom rabbana laa wax hëb lii yàlla nag ma may najaatan ak mucc ci àdduna ak alaaxira man rek mu ne wa asli ak samay wëyjur wal mashixati ak sëriñ si ma jàngal wal xatini ak samay dëkkandoo ndax ku dégg xam-xam bu rafet bii di nga xam ne dëgg-dëgg jàng na jàngal nañ ko waaw ñooñu rek nga ko yemale mu ne déedéet waax baab yi ak samay soppe muy ñun ñii nga xam ne nii bëgguñu ko du Seydi Haj Malik wal wasal ihsaani ak koo xam ne nii dafa def teraanga ci man moo xam indil na ma nangam wala nangam ba ci ku ma dimbali ci nagu gàmm wala tabaarakallahu sama jumaa ji jumaa yàlla ji ma tabax nga dimbali ma ci wasal ihsaani ku may dimbali daal def ci man rab rabbi ba ci ku wax ci man lu rafet ku képp ku def teranga ilay naa ci ñun ma boo ko ci yemalee rek day yób day day gàtt ma jameel muslimin mbuli julit yëpp sax ndax julit yëpp fu ñu mën a nekk rek ci àdduna bi euh, samay soppe lañ man Seydi Haj Malick yàlla na yàlla matal ñoom ñëpp njëgal googu yàlla ñu ci yàlla def yàlla ñu ci yàlla boole waal fu deex fa deex fal rabbi yàlla sa mbindeef yi yaa xam nu mu toll création bi kenn xamul ñaata milliards milliar la ku dul yàlla nu mu mën a toll na ko multiplier nag multiplier ma ko ay yoon junniy yoon na ko multiplier par mille yow yàlla mina salawaat yi def ko ay julli fil barril mu bii joxal ma ko ci ko joxal ma ko ku baax kii te mbaaxam wér ñëpp biir ñëpp mooy yonte yàlla Muhammad mi woon way salaamun yàlla nga julli ci moom euh, maanaam lim toll noonu defaat ko nag ci salaamu ci jàmm di fa zalika lu tolloog loolu wala ful ba na ko fulaat alfa alfin un million de fois un million de fois li nga julli ci salaat bi na nga def salaam bi moom mu multiplier ko un million de fois ndax salaat bi mille fois la waxoon Euh, salaam bi nag un million de fois ya umul ala nga matale waale ci ay tabaarakallahu ñoñam muy ñi ko gëm ba addunay tukki ak ay sëti deretam xiinan ci jamono baada xiinin gannaaw ci jamono waxtu wu ne rek nanga leen koy sotti ah, way wi yéeme na mu ne waat na waat na nazma wala wa inna nazma na nga xam ne nos bii nag yegg fii doy na sëkk sëkk zaati laabin ku doon sàkku boo bëggoon sàkku dara daal ci aajo Euh, fa nazmi sama nose bi xifzuhu mokkal ko rek wala jàngale ko wala jàng ka xawsu sujuuni am aajo gu faju àdduna ak alaxiral te loolu neex naa gëm parce que wax dëgg yàlla tënk na ci yonent bi tënkin goo xam ne ni doy na sëkk waaye téere bi doy na sëkk itam ci ku bëgg a xam yonent bi nga xam téere bi doy na sëkk ci ku amoon aajo xam ku yonent bi ak dundam ci gàttal dale na ko ci juddoom ba dale ko taba ba jeexale ko fii mu jeexale xare yi ba wuy ji boroomam bàyyi fi mag ñu baax ñii ba suñu bésu tey ji ba ci moom moomu kon nag boo bëggoon am xam-xam sa aajo faju na waaye itam tënk la rëms bi mooy yegg fii cent vingt la te cent vingt moo tolloog tabaarakallahu euh, yegg fii mu wax ne way bi yegg fii la ci ku bëggoon a xam chiffre bi yal na yàlla fayal ñu sëriñ bi wax dëgg yàlla ci tënk firi bu gaaw lañ ko firi waaye ku bëgg am xam-xam ku bëgg tabaarakallahu dégg-dëgg dégg nga li cheikh alhaj malik radiallahu anhu jàngale ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci xam-xam bu sell ci xam-xam bu leer ngir bëgg gum bëggoon yonent bi ba yemalew ko kenn moo tax yàlla na yàlla fayal ñu ko hada huwa tawfiqu min indi rabbina wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu wa rahmatullah wa barakatu wa rahmatullah wa barakatu wa rahmatullah wa barakatu wa rahmatullah wa barakatu wa rahmatullah wa